voilà buy ma eh buy ma eh eh man ngeen di toog man ngeen di toog naan naan naan naan xool fii dafa nekk naan naan. mais ma génn avancé leen avancé leen fii la jëm waay kaay la waay

ci jàmm. sant yàlla. waaw tey lu waral teewaay bi fii si Cambérène appelu 144 bu Seydina Limaamu Laay bi. waaw ah, dara ñëw yees lu si rek ñëw yees lu si te ne kër diine yëpp benn la boo doonee loo mënti doon ñëpp si laatar mustaxim ba benn la kese la ñun ñëpp si penk bi lañuy ñuy jublu te yàlla la ñuy ñaan ñu ñëw teew fii wàññiwul dara ñëw yees rek ak ah, def lu ba di leen gërëm it yéen it ndax yéen lu nit xam rek yéen a ka àggal ñu ngi leen di gërëm di leen sant. tey fan nga jógee tey ba ñëw fekkee tey appel bi ah Mbour nga jógee. Mbour nga jógee moo tax day nga ñëw bëgg a fekkee appel bi. ndax man mii di wax ak yow tariixa laayeen bu ñu àggee Mbour sama maam Manta Ngom moo tax. ndax bi mu commencé si tariixa bi wiiru gaal yi la daa def. di ko ay juróomi wiir mu doon jàng ay ndaw ba tey mu mën a doon ay téeméeri baas ak nangam ñun ñoo yore daayira mbuur boo ne boo taxaw ci mbuur boo ne ngomeel walla nga ne laayeen sunu kër lañ lay indi muy mantanga ibu siini bu ne mbuur sama kër maam ndax papa moo fa daa dal si digg kër ga daawul nangoo dugg sax néeg boo waxee mu ne bàyyi leen ma ci digg kër gi te kër gi day law rek te loolu moo waxoon ba tey daa am fu gan jóge ñëw ci kër gi moo tax ñun ñëpp ñu ñëw fi juróom-ñaari oto la ñuy pour ñëw teew si bis bi ñu ngi leen di gërëm nag di leen sant bu baax jërëjëf mbaa yaa ngi ci jàmm ah ñu ñëw fekk la tey si 144e appel bu Seydina Ali Maamu Laay bi ah tey la moo war a teewaay bi tey waaw teewaay bi ñu lu ko waral mooy dara mooy Seydina Ali Maamu moom ku ne xam na ni fii Sénégal ak àdduna wëndal képp taxawaay bi bi mu fi am ci diine ci ci culture rek lépp daal loolu tax na sabab nag daal suñu ñëw fii booy xool sax ñun duñ duñ ay laayet waaye waaye appel bi mun mënuñu koo ñàkk a teewe bu ñu ko defoon it feneen it dañuy ñëw rek parce que ñun ñooy jóge fu sori ñëw ba fii te daanaka daal dama am xaaruñ ci leneen lu dul ngërëmu seen naali maamu ak ak ak ndamu diine daal ndax tool nañ foo xamante ne amatul sax ay murit ay tijaan ay xaadir ak laay diine gi yëpp benn la te seen naali maamu loolu la woote loolu la loolu ñii ñëpp loolu dañ ci dañ ci dañ ci dañ ci kontaan daal di ko rafetlu ñi ñu mooy àndal ñëpp boo leen daal xam ni waaw seen naa laamu bi jiteel nañu lool lool ak diine yi jiteel nañu waaw loolu la ñu nañ ko sànni kàddu waaw ci appel bi nga xamante ne kontaan nañ ndax xéewal yi yëpp ñëw bi sama xel dem ci màggal Touba sax billaahi wax ba depuis ñu depuis ñu teg suñu tànk fële ci côté tii euh, ba BRT bi du ñëw xéwal yaa ngi kii te loolu li tamit la waaw sa gars yi génn nañu bu bari ku nekk def ko ci ci diine daal xaaroo ci benn benn benn bénéfice de retour dul ngërëm waaw te loolu tamit du rafet la daal waaw euh, tey ban yëg-yëg ngeen am tey bi ngeen nii di Cambérène tey mu nekk bis boo xamante ni euh, moom mooy am tey Cambérène ëllëg moom la ñuy am fële nga xamante ni moom mooy yow bi nga xamante ne dëkku diine la kenn mënu ko génne si dëkk diine ndax ku gis lii nii xam ni daal dëkkuwaay diine la te bu gën la daa bokk ci dëkk waay yi gën fii Sénégal waaw jëw tey teew fi day doon suñu suñu doon suñu ndam daal waaw.